di xoolaale nen merci beaucoup euh, ñu bàyyi la ñu dugg ci gan gi. waaw Ahmed ah, euh, c'est important fi mu toll peut-être euh, damay bëgg mu daaneel foofu rek je vous parle d'enjeu par rapport à ce procès bi nu renvoyé le 16 parce que Ousmane il incarne aujourd'hui le leadership de l'opposition gisoo ci benn enjeu ba jàpp ni yow sa yoon nekku si en tant que sénégalais ngay responsable politique war a bàyyi xel lii xew ci réew mi ndax loolu mën na am lu muy jeexital par rapport ak seen taxawaay ci langue politique bi monsieur Faye. nga eh, Moussa ay leadership politique ak ay loolu man sama yoon nee ko si ce que j'incarne man de fait mooy que je suis actuellement le directeur général du FERA à qui on a assigné donc des mission bu ma demee Saint-Louis je suis adjoint au maire chargé de la fiscalité et de la culture et j'essaie li nga xam ni doomu ndar yi loolu nañu gis ci Mansour fay ba Mansour fay jël loolu jox ma ko nan laa koy traduire. ok vous êtes, vous êtes affaire... responsable politique aussi. Ben, ouais. sur ce plateau vous incarnez toutes ces casquettes nga toog fii. bu ma neex interpeller la ci en tant que journaliste en politique euh, nga ma laaj. mais c'est une question politique problème mais c'est une question politique en mais ceux qui sont engagés dans ce problème autant ñoom ay responsabilités. ku mel ni Mame en tant que ministre mais il est politique Ousmane Sonko est politique. alors là, M. Ibrahim Faye, autant de casquettes, certes, mais le responsable politique de la paix, moi, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous en dites moi, Non, non, non, je n'ai pas d'opinion cela. Aussi simple, mhm. c'est une affaire qui est pendante au niveau de la justice entre deux personnes. Okay. Ce pas entre politique et politique, c'est entre deux personnes. Comme nous sommes Sénégalais, nous avons un dossier au niveau du tribunal, nous avons déposé plainte, nous avons traité. C'est aussi simple que cela, que maintenant nous pouvons politiser. Nous ñi ñi war a jàngi am problème ku nekk sa doom bu dee jàngi nga naan ko defar attention tey lii le Sénégal ne mérite pas cela et vraiment donc bu dee politique donc loolu lay jëriñ nga xam ni politique baaxul c'est important euh, Ahmed ñu dugg ci laaj wu njëkk bi mu di actualité concernant ay révélations yu Bougane Gueye Dany def jëm ci seen département ministériel vous êtes certes DG fonds d'entretien bi nga xamante mooy fer routier autonome bi euh, ngeen xëy dégg Bougane mu waxal ni leen lu toll ci quatre vingt dix ci milliards ci suñuy koppar euh, mu mel ni luubal da cee am yéen a ngi weddi waaye ba tey doy ko tey la gën a enfoncé le clou qu'est-ce qu'il en est réellement monsieur Faye par rapport ak coowal 98 milliards bi ak par de responsabilité tey Mansour Faye wala sax département ministériel bi en question. loolu nag mooy politique. mi ngi wax loolooy politique affaire quatre-vingt-dix-huit milliards parce que man gisuma sax lu ci ministre yoonam nekkee pour ko xam état nu muy doxee parce que tey jii on remarque que eh, véritablement bu dee ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci langue politique bi ku si nekk en chute libre eh, le le le point redondant bi nga xam ne moom ngay jógee mooy Mansour Faye c'est un bon élément politique pour dire que en ku bëgg siiw tu n'as qu'à attaquer Mansour Faye lu tax ma wax ko dans le cas d' espèce euh, quatre-vingt-dix-huit milliards. mu nekk li nga xam ni benn près la avance la avance sur un prêt bi nga xam ni FERA moo ko moo ko jëli. sa département FERA moo ko jëli. sa département. FERA ñi nga xam ne établissement public mais bi nga xam ne dafa am autonomie par rapport ak moom. par rapport ak juridiction yi. mais dafa am autonomie par rapport ak finance autonomie noonu nu tëggee Feera donc le directeur général que je suis man man maay esté en justice di représenter Feera am responsabilité donc dem wuti dem andi pour ñu defar tali Sénégal pour defar entretien autonomie mais man je je trouverais logique boo dee attaqué bu dee loolu la quatre-vingt-dix-huit milliards nga di directeur général Feera bi lii nangam nangam nangam pour man loolu logique ñu yow ki ki yore responsabilité bi nga tëb ko. daf la parce que peut-être peut-être que moom no daf la jéggi attaqué normalement. c'est pas la personne dossier bi yow la concerne quoi qu'il le directeur général la la concerne. donc nga tëb kooku noonu di wax le ministre amul sens et 98 milliards yi lan la. effectivement moom la sénégalais bëgg xam. non pas sénégalais moom la moom la buggaan bugg dugal ci boppu sénégalais yi pour la ndëmal leen. kon leeralal ñu amul voilà euh, c'est ça euh, l'état du Sénégal dafa amoon ba léegi am ambition construire deux mille huit cent cinquante kilomètres de route sur cinq ans mais pour désenclaver le Sénégal c'est pas pour ay defar Ndakaaru defar Ndar nga xam ni pratiquement xam na lu tali mais sénégalais lambda yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Kolda ñii dëkk Ziguinchor Casamance dem Sédhiou à l'intérieur du pays donc dem Linguère nga xam ni pratiquement balaa ñu gis tali il faut que ñu daw lu bëre pour dem ci route nationale le président de la République nii donc il faut l'équité territoriale il faut que ñu désenclaver l'intérieur du Sénégal d'autant plus que c'est une situation bi nga xam ne day impulser l'économie sénégalaise boo jëlee le sud ñëpp xam na ni la production d'anacarde donc c'est une réalité mais buñ ko dee exporté ki nga xam ne mooy mooy produire moom boo ci amee fukki dërëm ki nga xam ni moo ko génnee ba dem jaay ko am na si 1000 francs te muy xaalis bi nga xam ne dafay génn mais pourquoi le sénégalais bi nga xam ni moom moom moom ressources yi moom du ko jël c'est mission que le chef de l'État a pour le Sénégal pour ñu def ka cinq ans les enjeux actuels du Sénégal mënu ñu permettre donc ñu jël li nga xam ne ci budget Sénégal bi ñu tabax ka parce que c'est une urgence le FERA wax naa la institution institution financière la. rôle rôle rôle moom mooy wuti xaalis. day wuti xaalis donc jox ñi nga xam ne ñoo war a liggéey ñuy liggéey. FERA du liggéey. du doo ko jis ci opérationnel bi. mais da ngeen leble xaalis de. moom laa lay wax ko ci banque jàmbur. non non non non non demeewul noonu. non man dama lay wax beneen camp bi la ñu wax. non non mooy wax nga ko ba pare moi je développe. Ah. ñu jël ñu ni dañuy programme boobu noonu ñuy def. Mm-hmm. mi ngi jar six cent quatre vingt onze millions <coughs> six cent quatre vingt mu toll ci ñaata. 680 à peu près je pense cent 498 ça dépend xam nga euh, xaalis bi bu dee fluctuer un peu un peu. moins de 500 milliards daal bu dee dangay ngay leb mun na ko dépasser parce que ça dépend parce que boo dee leb donc li nga xam ne monnaie bi nga xam ne moom nga lebee moom ngay jël référence donc bu dee évoluer tamit ngay évoluer ak moom ci programme boobu cent 691 millions euh, d'euros yi. Mhm. paysans yi ñu xaar structuration pré bi nga xam ni tey maturité bi dafay dem juillet peut-être deux mille vingt trois te bu commencé juillet deux mille vingt dana fekk ni nawet dana am donc ça veut dire que mille vingt quatre donc lay demi pour nga mën a lancer des marchés donc ça veut dire que deux mille vingt cinq nga jëmi pour commencer réalisation. kañ la tàmbali dogguma la kañ la tàmbali. ñu commencé. xaaral rek moo moo expliqué la <laughs> mu ni loolu mënul nekk il faut trouver une solution. ki nga xam ni moom nañu waxanteel nga xam ne institution financière britannique la mhm. nga xam ni UKF lu tudd moom nga xam ne d'accord na ak état du Sénégal pour gungi ko ci loolu mais ci li nga xam ni ñun feeraa ñun ñooy joxe suñu engagement pour fay bor bi mhm. du état du Sénégal parce que ñun dañu am benn taxe parafiscale nga xam ne dañ ko tuddee TUR bi nga xam ne moom la ñuy collecté ñu moom ko suñu bopp exclusivement di jee au yoonu état nekku si ñu ñu gagé li nga xam ne mooy TUR boobu nga xam ne pratiquement chaque année daan si am 60 milliards ñu gagé ko au niveau donc ci banque boobu noonu pour mu lebal ñu si li ma la wax la 693 11 millions de dollars vu un peu l'urgence de la situation comme que banque britannique boobu moo koy financé mais prêt exim la lu bëri prêt exim boo ko mooy prêt export nga xam ni du xaalis na lay jox dañuy wax ni yow da nga bëgg a tabax tali ñun dañ lay defaral tali bi clé en donc jox la ko ngeen d'accord ci tali bi lii lay jar donc moom nga xam ni moom mooy financier bi mu jël jàll mii nga xam ni moom expertise loolu la am ci tabax loolu mu ni man jàllo laa wóolu jàllo laay jox mu tabaxal ma man tali laa lay jox du ma la jox xaalis loolu moom mooy financement exim donc mosoo gis ci adduna financement exim mi nga xam ne trésor public di ci impliqué wu parce que bailleurs yi am na foo xam ni bu ñëwee dañuy risque bi dañ koy wàññi. xanaa amuloon appel d'offre. non appel d'offre am na yooyu yëpp am na. Hmm? dama lay wax financement xam benn vice de forme ci procédure bi monsieur boo comprendre parce que yaa doo respecte les bi deux la. Mhm. yàlla financement parce que balaa ngay marché da ngay am ba pare. balaa ngay lancer marché il faut avoir les crédit boo amul crédit bi mënoo lancer marché première étape bi mooy nga dem wuti financement bi bu mu ñëwee ba taxaw ñu ni léegi donc pour que processus boobu mën a gaaw léegi nañu jël ci six cent quatre-vingt-onze millions bi euh, d'euros bi mm-hmm. donc ñu laaj une avance de cent cinquante millions d'euros looloo indi quatre-vingt-dix-huit boo boo ko traduire mooy indi quatre-vingt-dix-huit donc milliards yi nga xam ni sama waa ji mi ngi koy wax mais loolu avance de démarrage avance mais boo dee avancé boo dee entre kii mooy entrepreneur ki nga xam ni mooy financé moom kii la wóolu ni kii moom lay defar yow bëgg nga tali bi mais bu dee avance bu dee def avance kan la koy def mais du ko def Sénégal entrepreneur bi nañuy avance même ñun dans nos procédures ñun Sénégal man en tant que directeur général bu ma nee euh, entrepreneur sàngam defal ma tali commune commune de Niassia kooku noonu mais avance bi man ku ma koy jox mooy entrepreneur du ma ko jël di ko jox commune bi donc avance de démarrage boobu noonu nga xam ne cent cinquante millions d'euros bi moom nanu ñëw dugal ba pare ñu garantir que MUFG beneen banque encore ñëw ni moom dana accompagner l'État du Sénégal pour que cent cinquante millions d'euros boobu noonu mu jël ko en charge pour mu jël ko en il faut que banque bi nga xam ne anglaise mi nga xam ne moom moo lay lebal six cent quatre-vingt-onze millions d'euros bi moom donc engagé wu ni si 691 million boobu bu dee mettre nañ ko en place si nañ koy fay 150 millions d'euros bi parce que état du Sénégal wax naa la aw yorul xaalis bi donc ñun en tant que FERA organisme financier ñu ñu lever donc les fonds du coup ba nu demee ba nga xam ni wóor nañu léegi am cent 150 millions d'euros léegi am na nañu koppar bi te loolu la code des marché wax parce que pour nga démarrer donc un marché il faut que d'abord que les crédits existent les crédits existent wax naa la FERA liggéeyam du réaliser moom day wuti koppar jox ko ñuy réaliser et que dans le cas d'espèce <coughs> Ageroute moom mooy liggéey ñun su suñu budget dara bu dul dara sax bu dee dañuy def entretien routier dañuy jël koppar yooyu ni Ageroute am gis nañu tali yi yàqu na donc demal nga defar yi parce que moom mooy agence d'exécution et de gestion des routes bu dee ci wàllum voirie classée la donc xaalis boobu ba ñu ñëwee naturellement ñu ni Ageroute am na nañu xaalis mhm. léegi yow yaa yi seeta loolu comme que ki nga xam ne moom moo nu lebal xaalis dafa wax ni ASGC moom mooy réaliser les travaux donc tu as l'obligation de travailler ak ASGC mais maintenant cent cinquante millions d'euros du lu ndaw dañu jógee ci Covid donc am crise énergétique ñun on est conscient que que notre euh, système privé maanaam nos entrepreneurs liggéeyuñu amuñu liggéey code des marchés ni loolu bu amee dañuy wax ni offre spontanée la tudd article je pense 82 moo ko mu ni am nañu droit def li nga xam ni moom mooy euh, offre spontanée ci kaw li nga xam ni moom mooy ni xaalis boobu ñuy andi. wala travaux yooyu ñuy def ñu dénk ci lu toll 20 pour cent ay sénégalais loolu la code bi wax mais président de la république ni man c'est-à-dire que lebuma xaalis pour que AIGC ñëw di liggéey expatrier xaalis bi 20 pour cent dañu wax on va négocier avec AIGC. lu ëpp loolu ñu négocier avec AIGC AIGC d' accord ni quatre vingt cinq pour cent des travaux des entrepreneurs sénégalais ñoo koy def loolu économie de taille la tey boo jëlee ci xaalis boobu ñu indi quatre vingt cinq travaux yi c' est à dire que Ageroute AIGC donc dañuy contractualiser avec des entreprises sénégalaises et c' fait contrat yi parce que man maay fay comme lu muy buggaan lu ñoo xamu ko mais dañ la lebal de. mais su la mais leb mais ku leb yow yaa moom yow boo lebee banque ba euh, pour tabax sa kër de kan moo ko moom. banque yow yaa ko li ma ko bëgg a laaj. voilà yaa wax wax xamu ko mais kon lan ngeen jàpp ne moo tax a wax. day politique wax yi ak fan la ko teg day politique. c'est-à-dire wax naa la c'est-à-dire xam nga quelqu'un qui a plongé mais ak certitude mu ci àndal démb bi mu ne eh, euh, vraiment non man sax maa ngi ñëw ci <laughs> ci loxam ngeen euh, plainte parce que li liñ leen. tuumaal ni ak liñ leen waxal nii xamal tax jaru ko 98 milliards. du jaru ko xamal jar na ko tamit. kaay kaay ma wax la lu tax jaru ko xam nga ñun nous avons des hautes responsabilités dans ce pays et lu am solo mooy que les sénégalais ñi nga xam ni ñoom ñoo wóolu président Macky Sall. y compris les entrepreneurs parce que ñoom ñoo yore système ñoo yore privé bi ñoom ñooy booster économie sénégalaise ñoom ñooy jël nit ñi di liggéey il faut que ñooñu liggéey. ñun loolu dañ nu falee nekkul ñu fal pour ñuy toppatoo li nga xam ni du farata donc farata bi moom mooy donc aujourd'hui le près de six cent quatre-vingt-onze million nga xam ni cent cinquante dugub non je nga xam ni maturité bi ça arrive au mois de juillet ñu def le tout pour mobiliser ñun loolu la ñuy jugé ëllëg ci biir. man Pape a Faye directeur général bi FERA bu nu àggee ba juillet kenn mobilisé wul fonds yooyu en tant que directeur j'aurais échoué. soreetul j'aurais échoué. soreetul donc du coup loolu intéressé wu ma man li ma bëgg ak li ngeen ma assigné moom mooy le prêt de six cent quatre vingt onze millions d'euros nga xam ne pour construire deux mille huit cent kilomètres de nga xam ne soixante entreprises sénégalaises ñoom ñooy bénéficier wu travaux yooyu di fayeeku ay sénégalais donc man loolu nan ma sant pour ma réaliser ko. ok mais bu ma toppatoo li nga xam ni sana n'a absolument rien à voir avec les sénégalais aujourd'hui les quatre-vingt-dix-huit milliards dañ ko yóbbu ci compte séquestre compte séquestre ku xam définition compte séquestre. nga ñu ko. compte séquestre askan wi seetaan compte la bi nga xam jargon yi bi nga xam ni dañ koy tijji ci banque. mais logique jox ko par exemple Ahmed ñu ni yow da nga am compte da nga bëgg tabax par exemple yow yaa ñëw nga nii damay bugg tabax sama kër mu ngi jar vingt millions ñu ne ok d'accord pour que Ahmed nii tabax këram parce que loolu mooy objectif bi. looloo tax mu leb ko. looloo tax mu leb ko dañ koy dugal ci compte boo xam ne dañ koy tëj Ameth moom na dem waxaale ak entrepreneur bu koy tabaxal këram mu koy defal ay décomptam bu demee ba kër gi yam premier niveau premier niveau bi lii lay jar Ameth ni effectivement kii àgg na premier niveau mu ni banque bi donc àgg na premier niveau ki ka lebal xaalis bi ni effectivement àgg na premier niveau mu jël entrepreneur bi fay ka loolu mu ko yoreel du ko jox Ameth parce que bu ko joxee Ameth amee mën na ko dugal ci la nga xam ni bokk ci loolu mooy compte séquestre compte séquestre bi ñett ñoo si signé man directeur général AIGC nga xam ni moom moo gañee marché bi ak ki nga xam ni moom moo lebalee xaalis bi benn signature bu ci manqué donc xaalis mënul génn ci compte boobu noonu te xaalis mënul xaalis boobu c'est exclusivement dédié aux travaux mënul fay leneen léegi léegi léegi man sama beneen laaj yaa Moussa nga may ma ko. te contre séquestre xaaral ma ñëw contre séquestre ah. du compte comme Bougane nu mu juumee encore foofu du compte de dépôt compte de dépôt moom ngay jël dugal ko fenn wut xaalis nii dama koy teg foofu noonu ba étape tel donc ma gagné si tel travaux yuy dem ngay fay entrepreneur loolu mënul nekk compte de dépôt. parce que Bougane dafa Bougane non dafa juum xam nga dama. yaa bugaan jàngandoo leen. dama dama dama. yaa bugaan ndax jàngandoo leen bokk leen woon benn jàngandoo ñoo jàngandoo mais loolu c' est pas important. mais c' important que. non mais c' mon ami. loolu wax loolu ma ma préciser la. waaw sa rapport ak bugaan c' est quoi. non c' est mon ami. di nga wax c' mon ami. mais ça n' a rien à voir. Hmm. ça n' a absolument rien à voir. a absolument rien à voir par rapport à mais mais bugaan ni mu xam dossier bi. du début à la fin ak c'est mais yow jàpp nga ne doo saisir justice man man li ma la wax ci 98 milliards non base basez si mes argumentaires sont faux ak li ngeen ci xam. non man contredire ma des faits. moi moi que sur euh, y a pas de dossier. c'est tout juste que Bougane génn na donc en tant que politique qui est en baisse dans les sondages pour ñu bañ ko fàtte. donc ci élection yii di ñëw donc voilà Mansour Faye c'est un bon voilà indicateur pour rebondir <laughs> politiquement on attaque c'est aussi simple que cela. mais Mansour. voilà gis nañ réponse bi mais réponse bi euh, que mbir ay sos la nangam rek jàll. Euh, Babacar Fall pose na ko question mu ne ko boo ko waxaatee ma porter plainte pour moins que ça. tey jii ñu wax ko pour quatre-vingt-dix-huit milliards de francs CFA mu tontu noonu rek jàll kon est-ce que bu traduiroon Bougane Gueye Dany en justice loolu noonu du gën a du doon gën a crédité sa thèse moom que il est innocent que amul dara. xam mooy crédité thèse bu Mansour Faye. Mhm. te ngeen gis ko ci télé bi. moom muy dem di lancé travaux yi ni PSG moo ko financé mais loolooy kii bi loolooy réponse bi mooy réalité bi c'est l'action qui la le discours. c'est pas la peine ñi ñaa ngi gis il est partout au Sénégal dem di lancer des travaux sur financement du PSD keroog ba président demee Sédhiou on a lancé aussi le président a lancé des travaux financés par le PSD donc c'est du réel donc ñun mënuñu nekk di di di traverser suñu bokk ci li nga xam ne ça n'a rien à voir avec le chemin qu'on doit pour le développement du du Sénégal maintenant yeneen considération yi nga xam ni donc nit ku nekk donc sa façon de, de de réagir devant une situation mais l'essentiel pour man pour man ñun politique yi encore une fois on est là pour servir les populations waruñu nekk nekk dans des tentations calculatrices yi nga xam ni kenn xamul fu mu jógee ba nga xam ni ki nga xam ni moom la ñuy servir sax moom il se retrouve plus dans ce qu'on est en train de de faire. xëy euh, man lu ma lu ma bëggoon lu ma bëggoon mu leeralaat quoi parce que beaucoup de gens ñu ngi koy euh, posé waat ci ci ci commentaire yi parce que financement bi M MUFG Bank moom moo ko def pour pour cent cinquante millions d'euros. la soit l'avance maintenant ban projet la terre ci explication bu terre ban projet la fan la waroon a dem ba jur coow lii lépp. non fu dem la war a dem projet bi moom mooy moom laa la ko wax. état du Sénégal. son projet son programme c' est de réaliser deux mille huit cent cinquante kilomètres de route. waxoon nga loolu. maanaam d'une manière terre à terre maanaam commencé na. fan ak fan lañ commencé maanaam ñu ne ma wakaam la ba Mermoz mooy loolu ngeen fay gis oh, camion yi di fa sotti suuf ak. nangam ak nangam c'est-à-dire lu visuel. lu concret loo xam ne projet boobu noonu. mu ngi noonu lu visuel boo demee Casamance boobu may wax Casamance. Mm-hmm. boucle de Fougni gars yi commencé nan ko te ku fa dem keroog ba may dem mission. nii nii boo fa demoon gars yi boo demee dem nii fa. boo demee aussi dans le Fouta. donc commencé noonu dans des artères de Dakar donc beaucoup d'artères je peux vous donner donc exactement donc yi nga xam ne boo demee da ngay fekk ñi ñi di réaliser. fii ci Dakar ci Dakar. et li nga xam ni moom nanu fay à des entreprises yi nga xam ni sénégalaises de droit sénégalais donc mi ngi fii nii donc c'est du réel c'est pas du du discours politique encore une fois. parce que quand même ràññale li nga xam ni heure liggéey la ak li nga xam ni. heure heure heure politique la. d' accord c' est bon à savoir donc yaa Moussa comme gars li ñuy wax. Hmm? naan kaña yi ñoo gas Dakar donc travaux ñoom Moussa Faye la du ay kaña. <laughs> xeetu xeetu Youssoupha Sonko yi dégg naa leen ci commentaire yi waaye mënta ñàkk ndax ñu ngi ñu ngi bàyyi xel euh, waxtaan wi euh, kon monsieur Faye dañuy jàll ci euh, beneen point politique concernant ñu ngeen sekkal la langue politique bi ni ki tey jii sax giga meeting war na am muy coalition. yeewi askan wi ñu war a xëy le 15 ci yeneen manifestation enchaîné le 16 ñu war a jëm ci procès dox diggante Ousmane ak Mame Mbaye ci wàllu manifestation yi bokk mu mel ni démb servir ngeen de réponse waaye ki ko def muy Pape Malick Ndour tamit am lu ñenn ñi ñàkk rafetlu ci réponse politique gën a mel ci lii di am te ñu bëri xaw ñaaw njort tey lan mooy sa taxaw seetlu. ban ñaaw njort la ñu ñi am ci réponse. mais mais man eh, xew-xew yi fi daan am gis ngeen conséquence yi mu daan jur. alors tey bu fekkee kuréel politique taxaw na annoncé ay ay ay ndaje na ay manifestation ngeen am lu ngeen tontoo tamit euh, nit ñi askan wi dañuy xaw a jaaxle ci ñaari camps yi ndax du ñu jëm vers l'inévitable. non mais da du du Pape Malick Ndour Pape Malick comme li nga wax réponse la andi bu amee réponse question am na au départ. donc damay manifeste ñu bëgg ko ñu bañ ko ñu autoriser ko ñu ñàkk autoriser donc ça. waaw ah, loolu la Ousmane ko wax. non politique waaw politique la. waaw cest que bu amee question politique mais réponse politique lay lay xaar encore une fois c'est pas le ministre Pape Malick Ndour qui a parlé c'est Pape Malick Ndour en tant que politique bi nga xam ni. di nga considéré. mën nañ ko mën nañ ko dissocier mu ngi mel ni kilifa kër gi jénn eh, ci mbedd bi naan nekkatuma kilifa gi ci kër gi donc maa ngi ci mbedd mi lu ma neex laa def mais est que parfois kilifa yi bu ñu toogee ci yenn jotaay politique yi du ñu bàyyi xel kilifteef ak ndombal tànk yi ñu leen dénk ñu war a uuf ñëpp comme ni ma ko waxee sànq avant ngay ñëw est-ce que Pape Malick Ndour monsieur le ministre quand même buy wax du soor ne man journaliste yi. toog fii euh, ka bokk biir Pastef ka bokk biir affaire ak ndaw la nekk Saint-Louis ba nekk Mbëlëxteen ñooñu ñëpp ay ndawam lañ mooy seen ministre. mais est-ce que du bàyyi xel loolu. parfois bàyyi na ci xel boo dégloo am ne bàyyi na ci xel. Hmm. moom waxul ni dem je di dem leen xeexi waxu ko benn yoon dafa li nga xam ni bien wu ñëpp la. waaw ñun ndaw yi nanu dem préserver ko. bien bi du bien wu Massamba ma demb wala parti tel ou tel donc il n'a pas appelé à la violence au contraire. lan moo leen tiital ci li opposition bi. di waaj bën tiit bën tiit <laughs> feewul kuy tiit. y a <laughs> daaw ñu gis <laughs> une telle mobilisation. non kooku c'est raaroon ngeen ci plateau yi non non non. opposition bi ak seen montée en puissance bi ci résultat yi ñuy def occupé médiatique bi. tey ñu bëgg amal seen giga meeting. mel na ni fipp dafa seen bopp peut-être que yéen journalistes yi yéen a doon rek. c'est aussi simple xam nga am na li nga xam ni. man pour man ku yore caq ak ku yorul caq mënuñu yam attitude donc mënul nekk on on peut pas avoir la même stratégie que kii ni la jugal ma toog sa place bi nga bëgg laa loo loo def lu baax du ko gis dans tous les cas du ko wax ñun tamit en tant que donc au pouvoir man nekk ma fi pour nekk géwalu opposition. li nga xam ni moom nañu assigné politiquement. ak ñu assigné que niveau de l' état ak sens de responsabilité bu mu war a moom moom nañu war a àndal maintenant que chacun se prenne voilà. Euh, se prend pour un pour un guerrier. Ah oh, loolu am na. ci mobilisation bi mu war a àndal. Séné Sénégal Sénégal ñëpp xam nañ ni c' est un espace démocratique. mi mhm. nga xam ni même ki nga xam ni eh, jàpp na ni moom kese la sax ak ak doomam ak parteem donc mun na woote lu ko neex mais maintenant à la fin dañuy xam kan mooy kan c'est ça la démocratie c'est le jeu démocratique. j'ai xaw a doyee di opposition bi quoi. mel oh, na ni ni ngay waxee ni yow joxoo leen benn solo quoi. opposition laay jox solo wala ñàkk solo. Mhm. encore une fois. moi je suis dans un parti dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yaakaar. vous n'avez pas encore de candidat voilà. kooku loolu tamit si ñëw à ah, Benno Bokk Yaakaar. non ki leen jiite sax fi n'a yéen jàpp ngeen ni moom moo war a toog mais coow am na ci parce que grande mobile coalition bii di euh, opposition bi ak li ñuy waaj a amal euh, dañuy xeex yéen li ngeen. bëgg a amal mais mais tax nga bëgg jàpp ci camp présidentiel bi di wax loolu noonu mais camp opposition. man je te parle équilibré équilibré parce que. dans non non je ne manque pas d'équilibre. du doigt je dis seulement que li ngay wax mais am na si opposition bi ku nekk mi ngi déclarer candidature. ci opposition bi. mais lu tax waxuñu ni. dafa am tasaaroo donc non Macky Macky. am na li nga xam ni c'est. am na lum am na li nga xam ni c'est individuel. tey jii président Macky Sall. et wax na ko dans plusieurs plateaux. li mu wax mooy du bokk te bind na ko non non non musul wax loolu. 2019 Sénégal au cœur c'est mon second et dernier mandat. vous n'allez pas me contredire dama ne la individuel. que président Macky Sall est-ce que tey président Macky Sall bu ne woon tey dañuy dañuy dañuy dañuy tëj jàll mi président doonte mooy président de. mais yow yow yaay jëkk jug nii mais président yi ban maa xaamaa am ni dañuy tëj jàll mais dëkk bi dafa am ay ay règle ak ay loi sa bëgg-bëgg na nekk sa bëgg-bëgg waaye ca jëfin ba. donc dafa am lu ko lu ko lu koy lu koy. paramètre il n'est pas n'importe qui de. non il n'est pas n'importe qui il jamais n'importe qui. il a fini de tracer l'histoire du Sénégal donc et de fort belle manière donc loolu loolu loolu loolu loolu lu am solo la mais ki nga xam ne moom mooy wax di kii mën na nekk candidat wala kii mënul nekk candidat du président Macky Sall mm-hmm. du moom ko moom du moom moom loolu donc lu mu am doole doole ak constitution bi lu mu ko jox doole doole jox ko doole boobu kon yow lan nga jàpp non ba nu àgg ci ba nu àgg ci coowal article 27 man man man Pape Ibrahima Faye je peux je peux avoir une opinion personnelle et ça c'est personnel. moi je veux que le je, se représente loolu y pas de problème. mais ça c'est une opinion. ëllëg ci biir bu ma nee mun na présenter ñu def suñu def débat ba pare ki nga xam ne moo.